salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi nga xamante ni yéene topp chaîne bu mag bi nga xamante ni wax dëgg yàlla moo fi nekkal askan wi ci biir kàddu askan wi ñu ñëwaat tey rek fii nga xamante ni ci commune Djiddah Thiaroye Kaw plus particulièrement ñu nekk ci secteur bi nga xamante ni mooy Lamsar waaye mu mel ni dañ fiy jànkonte ay jafe-jafe yoo xamante ni saa su ne bu nawet dikkee dafay xaw a doy waar loolu ni ko àdduna yëpp di jooyee Sénégal gépp di ko jooyee mais fii daf cee gën a garaaw ndax li tax loola mooy dafa dafa nekk ci benn secteur boo xamante ni tool ay tool ñoo fi nekk dex goo xamante ni moo fi nekk doon fi cosaan goo xam ne lu yàgg la waaye ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci alentour bi ak ci wet boor boobu yëpp bu nawet jotee dañuy am problème parce que li waral loolu mooy dafa def benn descente bu doy waar boo xamante ni ndox miy génnee biir Pikine yëpp fii lay daal jëm si mënatuñoo am kër yu baax mënatuñoo am dara lu tey fii ñu dugg nii boo leen xoolee fii ay jeunes ñoo fi nekk yoo xam dañuy daan seen doole di ut loo xam ne ci la ñuy loo di ci suturloo seen njaboot te kër yu fi jag itam ñoom ñi am nañ ci wàll kon tey jii fii nga xamante ni moom lañ dugg yéen a gis image yi ni ngeen koy gisee ñu fekk fi ñenn ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir atelier bi di fi liggéey kilifa gi ñu ngi lay nuyu di la ziare bu baax a baax. waaw ñoo ngi delloo nuyoo waaw euh, di di ziare ñëpp di masawu ñëpp waaw ñun de yaa leen gis daara daara ji daal moo ngi nii fii mooy daara Ngom et frère waaw gis ngeen daal na ñu ndox bi def waaye comme mbiru yàlla la moom ñu si dara daal mënuñu si dara mais nag xanaa di sant rek waaw tey bu ñu amoon lu ñu gënal xëy na bon du demee nii mais comme nii la demee kooku moom lu yàlla def la daal du mbiru nit waaw mais dafa mel ni lii dafa mel ni at mu jot nawet bu jot da ngeen di dund lu mel nii nii nii nii lu waral loolu fi mu toll nii da ngeen cee jugul ay précaution wala seeti wu leen kilifa yi ngeen ci war a seeti pour ñu mën leen cee mais loolu kilifa yi euh, daf nañ ay démarches quoi pour que des fois pour ñu mën si am ndimbal. xëy na kay euh, ndimbal bi moo des si moo moo des. donc bu fekkente ni gannaaw yàlla dogal na fi ne ngeen def ci ay jéego lancé appel seeti ji leen waxtaan ak ñoom ñu ne dina ñëw boobu ba léegi gisagu leen kenn ku leen ci taxaw at mu jot ngeen di dund li ban coono ak naka ngeen di dundee lii nii nii fi mu ah mais mooy mooy comme ni nga ko gisee rek <laughs> coono bi kay lii lii rek la mënu koo weesu. gis nga li ñu daj pour génnee bagage yi si biir ndox mi. c'est pas facile quoi. c'est pas facile. bu ñu amoon lu ñu gënal du demee nii mais nag euh, tamit am na loo xam ne sunu sunu loxo mënu ko. xam nga ndimbal lañ ci bëgg quoi. surtout waaw ndimbal lañ ci bëgg. Mhm. bu ñu amoon ndimbal nag jël. Mhm. franchement bu ñu amoon ndimbal jël ko macha allah waay ko bu baax la ñuy def kon di interpeller encore une fois de plus le de la commune de Djiddah Thiaroye Kaw monsieur Cheikh Dieng sa askan sa njaboot yi dëkk fii ci jidd Caaroy kaw koo ci ne Cheikh Dieng mu ni xaw ma kuy suñu maire donc lii defe naa ni taxul woon askan wi fal la taxul woon tam askan wi bàyyi la fi kon ñi ngi def interpellation au niveau de la mairie de la commune de Jidda Caaroy kaw le maire en personne Cheikh Dieng askanu Jidda Caaroy kaw plus particulièrement Lansar Aynoumane ite woo nañ nga ñëw taxawu leen parce que lii dafa metti ay ndaw fi nekk ay jeunes fi ne te yéen ñi leen di fal defe naa ni ndaw ñi moo leen di fal jeunes yi ñoo leen di jeunesse bi moo leen fal kon defe naa ni jeunesse bi a seetaan ñuy nekk ci ay coono interpellé nañ la à deux à benn du ñaar du ñett mais jusqu'à présent amuñ ci benn taxaw boo xamante ne am nañ te askan wi fi mu ne ñoom ñoo la fi tegoon kon tam taxawu leen dafay am solo lool macha allah rabbi du du du critique mais dañoo dañoo sonn moo tax ñu yëkkati suñu kàddu di ko waxee nii comme mbedd mi boo ko xoolee mbedd mi mépp ndox la suuf si xar kenn xamul fooy jaar kenn amul noo def oto yoo xam ne sax dañu dem ba seen ñaari pneu yi di wàcc ci biir ci biir ci biir ci biir pax yi dafa metti te lii defar ko defe naa ne yomb na kon le maire en personne ñi ngi ñi ngi ñi ngi sollicité waat encore une fois de plus boo seetaanee vidéo bi wala sa conseil yi seetaan ko nañ la ko wax jël leen nit ñi ngeen war a teg ci seen wet ngeen teg leen ci seen wet ñu mën a jóg taxawu leen ci biir askan bi gannaaw askan wi moo leen faloon kaddu askan wi la ñu seetiwaat keneen koo xamante ni sunu kilifa la fii la nekk ci biir gox bi waaye ndox mi moom it daanaka nangu na butigam nangu na palaasam nañ dem ñu xool ko léegi daal di dellusiwaat waaw su ko defee rek comme ni ngeen ko déggee woon léegi rek ñu taxaw ak suñu benn kilifa suñu njaatige di suñu kilifa wax dëgg yàlla moom it ñu laaj ko rek kàddoom ci biir kàddu askan wi ak tolluwaay wi nga xamante ni mbedd mii ci barax bi noonu la mel ndox mi suñu ginnaaw gis ngeen ko mbedd mi kenn mënu fee jaar ñëpp ci biir ndox la jaar kilifa gi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziare bu baax a baax delloo nuyoo delloo bu baax di leen gërëm nag ci di leen jaajëfal surtout seen liggéey parce que yéen ku yeboo di leen ah, mhm. am solo la parce que am loo xam ne ump na askan wi mais yéen a koy loqati di leen ko tegal mhm. te nag ci ay ruq yu ruqi ngeen koy loqati di leen ko tegal kon ñu jara gërëm ngeen ñu jara sargal ngeen macha allah tubarkalla ak lan mu mel ni fi ne dañoo xool ni secteur bii fi mu ne tey jii nawet bu jot dafay am jafe-jafe yu fi am ci wàllu maanaam ndox mi ni muy ñëwee parce que nee naa bu ñu xoolee ndox mi nga xam ne mi ngi génne Pikine gépp fii lay jubal si ba tax na dafay xar mbedd yi ba kenn dootul jàll ay pneu oto di dugg ci biir pax yi lu ne di fi xew naka ngeen di dundee mu jot dafa mel ni. métit métit métit boo xam ne jooy nañu jooyu xol ba ba sonn. Mhm. xam nga ñun jooyu rangooñ nañ ko. waa jooyu xol nag moo fi nekk. mais mhm. ba nga xam ne loolu yëpp euh, doo mën a diingat kenn doo mën a sëf kenn ludul ñi ñu fal. te kat ku ci ne xam nga ne ban lay fal yàlla la njëkk a sas boo ko xamee noonu rek kon kii la fal yàlla da ko jaarale ci moom mu fal la te ñu bëree ngi xëcc pour ñu fal leen mu jaral leen dem ba gannaaw inde pour wuti ay xaatima ki ay yu kenn xamul pour ñu fal leen rek ah wuti ay sëriñ ak lu ne pour ñu samp leen ci seen bureau pour lan pour ñu def lu leen neex kenn du leen fa jëlee mais pour lan qu'est-ce qui se lu xew ah mais bu fekkee yaa ngi xëcc pour ñu fal la ngay laaj benn place mu jaral lu ne mais boo fa toogee wane ko parce que nit ku ne bu la yàlla falee am na lu mu dëxañ ci yow pour askan wi du dëgg léegi bu fekkee ne askan wi nag nangu nañ la yow sa kilifteef automatiquement dañ ciy gis suñu bopp ah mais bu fekkee ne nangu lan la sa kilifteef te gisuñ suñu bopp lan lay nurool on comprend pas on comprend pas te gis nga li ma lay wax ni gis nga réew mi ñu koy liggéey dëgg-dëgg mm-hmm. ñu ngi ci ghetto wallahi azim ñu ci xam nga lu tax mais la preuve en est que ne buñ ko xoolee boo xee taxaw fii ci tali bu mag bi ñaata Ndiaga Ndiaye ñaata taxi ñaata car rapide ñoo fiy départ jëm biir Dakar te ñëpp Dakar la ñuy xëy te ñoom ñu fay xëy ñëpp ci banlieue bi la ñuy génne. Ah, doy na waar de doy na waar de am na yoo xam ne kenn mënu ko expliquer kenn mënu ko expliquer te kan dinaa lox benn affaire de gis nga ku ci ne actuellement mm. euh, bu fekkee ne woon mais yi mm. ku ci ne sax xamoo sa limite. surtout loolu nag mais c'est grave. depuis 1960 am na maire yoo xamuñ sax seen limite li ñu war a gérer xamuñu ko <laughs> mais c'est la folie xamuñu ko sax te yaa ngi xëccu pour yor dara yaa ngi xëccu pour ñu fal la mm-hmm. mais yow normalement bu fekkee na xam nga sa limite mm-hmm. maire bee xam limite am mm-hmm. automatiquement sa gox day neex a liggéey day neex a transane day neex a gestion a ah? ñoom dañu war a coaliser wu pour a xool fi ne seen limite fi mu mais effectivement la sax loolu tax liggéey amul mais boo xamul sa limite sa limite looy liggéeyee te pour nga xam sa limite xam-xam la. xam-xam la moo tax ma la ñiy def moo tax ma ne la ñiy defar réew mi ñu ngi ci ghetto bi. ñu ngi ci ghetto bi parce que ñu ngi toog di réfléchir di méditer di xool fu ñuy jaar. lan la lu xew. am na yoo xam ne président sax mënu koo gis. am na yoo ñun ñi ñoo war a wax ak président mu gis ko. Mhm. te ñoom maire yi ñoo war a mën a tax ba président yëg li xew dëgg-dëgg mais liggéey ñu liggéey bi mais mais loolu mooy problème bi loolu mooy problème bi. loolu rek mooy problème bi contre ñu kenn ki xala kenn mais seulement booy xëccu place pour jot ko def lu ko jar surtout def fa lu ko jar parce que képp ku ñu fal am na lu yàlla def ci yow pour askan bi mais na askan bi gis seen bopp ci loolu ah, na askan gis seen bopp ci loolu mais duñ ko gis lan la ñuy gis dara dara dara dara. bu campagne jotee ñu xëy campagne. Ah? waaw lii waaw waaw waaw li ñuy collecté li ñuy kii anam anamu. ah, ah? juuti yi patati yi waaw gis nga xam nga sax maire yi sax dañ daan xuloo ci affaire seen kii moo war a juuti fee. Hmm. kii moo war a dagg fële. ñàkk a xam ñàkk a xam seen limite la. mais kooku c'est dangereux depuis 1960 xamu leen seen limite. en tant que maire yow xamoo sa limite amal xam-xamu liggéey man su may xëccu dara pour Macky fal ma. Hmm. wala keneen fal ma. day fekk man li ma li may xëccu pour ñu fal ma ko damay maîtriser parce que xam naa ne fii kenn dëkku fi yombal xiyaam mooy lépp attention bu ñu fàtte de yombal xiyaam mooy lépp ah mais koo xam ne yow fii rek moo la soxal mais attention foo jëm kii rek moo la soxal ko yow fii rek ngay lijjanti mais c'est pas possible da ngay lijjanti fii pour fee leer fee nag dinañ dekki dinañ layoo attention nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax moo tax nit koo xam ne yaa ngi xëcc pour ñu fal la ba yàlla def ñu fal la yàllaa la njëkk a sas. Mm-hmm. ba noppi ba noppi jaarale ko ci ki la fal. Mm-hmm. muy ñaata sas ñaar ak sa sasu conscience. Mm-hmm. askan wi door a ah, muy ñaata. mais mukk loo. lay ndeysaan. ah les quatre coins cardinaux ngoog. du dëgg mais nañu xam nag fan la ñuy teg suñu tànk ñun askan bi ñun ñoo war a xam ñan la ñuy fal. ak ñan lañuy ñuy déglu. waaw il est temps nag mais mais weesu na ko sax. depuis 1960 ba léegi Sénégal nu mu mel. et puis c' est tellement folklore suñu réew mi c' trop folklore ça. mais man je me dis que ne est ce que tey jii le président de la république xam na secteur bii ñu nekk ni nii nii est ce que le président de la république xam na ko. ñoo ko mën a xamloo fi mu ne su ma doon xëcc wala ma bind ko lettre pour mu jot ko du ma ko jot ba naan da naan kii day marto or que am na yoo xam ne su ma ko bindoon mu jot ko non. parce que borom dégg-dégg la de ni ngi koy gis noonu attention. non c'est-à-dire boo gis entourage bi moo baaxul parce war a jottali message maanaam lantinoor yi diw ñoo yàq réew mi. Ah. Lantinoor war ta diw. ndax nga wax ko ndax ñu ñu ko ci dund. <laughs> macha allah ñu wax ko dund parce que dañuy dundu ñëpp bëgg a dund. Mm-hmm. du dëgg mais da ngay xool lii gis nga nag affaire atelier yi affaire kii ci gox yi la ne ci askan yi la ne moo tax ma ne la maire yi amuñu xam-xamu liggéey nañ waxante dëgg bu ñu xam-xamu liggéey ku ci ne da ngay xam sa territoire boo ko xamee di nga am espace boo xam ne di nga mun a déplacer euh, nu mu tëddee euh, atelier yi parce que atelier ñu ngi ci biir askan wi te atelier ci biir askan bi sax du ñu arrangé du yokk wér comprend nga mm-hmm. ébéniste yaa ngi fi ñëpp ngi fi ñii di suuf très bien da leen a waroon nag boo xamee yow en tant que maire sa gox fan la toll sa périmètre li nga war a gérer fan la toll li nga war a collecter sax day yomb dangay xam day neex a gestionner du dëgg léegi su ko defee yow di nga am espace boo xam ne au moins ah di nga mën a jël sa atelier yi nekk sa gox defal leen ay ay ay atelier yu am solo ah defal leen fa ay taleeg ay lépp ah pour nit ñi am jàmm même oto yi nekk fanaan ci biti nii mais quand même mën nañ defar ay garage yoo xam ne quand même ah yi nga xam ne ñooy garde fi oto yi ah ñu wala ñu gérer ko di am dara par fin du mois moo gën oto yi tas ni ci biti léegi da ngay xëy ñu dajji sa oto jël say affaire jël parce que c'est trop folklore on comprend rien boy on comprend rien léegi yaa ngi xëccu di xëccu di xëccu waaye ngir yàlla buñ la falee wane lu tax nga doon xëcc pour ñu fan la. na nga koy wane. loolu mooy solo bi surtout. Ah, solo bi yëpp foofu la du feneen. moo tax ma ne la ñiy defar ghetto bi ñiy defar réew mi. ñu ngi ci ghetto bi dama koy répété je me encore ah. ñi koy defar ñu ngi ci ghetto bi. Macky Sall na seetlu bu baax ñiy wax dëgg. Mm-hmm. mu jéem leen xëcc ñu toog ci wetam. Mm-hmm. parce que ñi ko wër am na ñu am dégg-dégg nag xool am na ministre yu am dégg-dégg ko wër am na ay conseil yu am dégg-dégg yu ko wër mais nag am na ñu des ci géttu bi ñoo xam ne ils sont à te ay kàngam la ñu te boo leen xëccoon ba ne leen naka mu ñu tegal la ko ci taabal bi am na yoo xam ne dami yi la su ma leen ne puusal pion bi ak bi ak bi kenn du puus di nga dem ndar del si kenn du puus masalaam jëla nga ngeen jëla jaajëf jaajëfal ko bu baax a baax a baax kii suñu kilifa la di sargal di di di gërëm nag président de la république parce que euh, dañ ko war a nangul kilifteefam. sëru mhm. yàlla gis nga sunu borom bu la falee. Mhm. sa askan nangul la sa kilifteef. Mhm. ñëpp li mu dëxañ ci yow dañ ci gis sunu bopp. mais bu fekkee ne nanguloon la sa kilifteef mais duñu mus a gis li ñu dëxañ ci yow te képp ku mu fal am na lu mu def ci yow de attention pour ñun la nag li mu def ci mag yi pour ñun la mais bu fekkee ne dañ ko nangulul kilifteef fan lañ jëm ah lu mu def dañ ci xëpp kaani lu mu xëpp ñun a baaxul. du dëgg mais bu fekkee dañ ko nangul kilifteefam mais attention macha allah la en tant que yow pere de famille da nga koy nattaan ci yow en tant que père de famille sa kër nangulul la sa kilifteef foo jëm lan la lay jëriñ wasalaam di nuyu nag askan wi yëpp dina xam ne kii di wax nag dina laaji réew mi bés. <laughs> parce que soxla naa ko. du ñàng mu rëy. jàng ba yëy këyit yi. wala xooj ko sangoo ko mooy tax nga mun a yor réew déedéet. xam-xam mooy yor réew je on un nag je me cache pas xam-xam mooy yor réew te boo leen weddee lii ma leen wax bés buñ ca jëmee su ma laajee réew mi jox leen ko ngeen xool dama leen koy liggéey tegal leen ko ci taabal bi dem sama parce que man fee laay xool yomal xiyaam fii ñoruma mm-hmm. yomal xiyaam laay xool te dama yërëm sama askan dama yërëm sama askan depuis ay temps sunu maam Lamine Gueye ba yéegi ñu ngi fi xam nañ ni réew miy doxee ku fi jaar xam nañu ni muy doxee ku ci ne am na lu yàlla dëxaw ñoon ci yow mais askan ne ñoo lay yàqal ba ci kii toog actuellement son excellence askan wi ñoo bañ kilifteefam te kat ñenn ñi ñoo bañ kilifteefam ba noppi contaminé ñi nga xam ne dañoo ñàkk fulla mais attention. yow mais mu daal di jur ah très bien mais fan lañ jëm kon. kàmb du fa am Youssou na ko. Youssou Ndour sama jaarbaat wéy na ko. il me connaît très bien nag. xam ah, ñoo ko yar. <laughs> ñoo ko yar moo tax ma ne la moo tax ma ne la ñu wër Macky. borom dégg-dégg lañu. kon ba Macky mi ngi fees dell ak dégg mm. kon boo ñun ñoo ko war a dimbali. macha allah ni ko war a dimbalee mooy wax muy dégg. Mm-hmm. di ci jaar. Mm-hmm. du dëgg mm-hmm. léegi nag problème bi mooy ah. Macky Sall bu fekkee ne man mun nga ma xëcc tuuti rek ma nekk sa au moins une semaine. soxlawuma dërëm na. nga wax nga wax ko idée yi nga am rek. une semaine rek ma tegal la dara ci table bi dinañ boo dee damier boo fekkee na damier la boo poussé pion kenn du pousse. falaa yem nag Macky jërë ngeen jëf. kon nag monsieur le président dégg nga loolu waaye monsieur le maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao Cheikhou Dieng en personne man je m'adresse encore ci yow jotiwuma Macky Sall jotiwuma benn ministre tu es maire de la commune commune bi fal la teg la fi. cër bi nga am suñu borom moo la ko jox du nit ñi mais nit ñi ñoo dem sànni ji ay xob pour fal la kon yow ci sa bopp bàyyi xel askan wi nga xamante ni ñoo la faloon nga jóg dugg ci seen biir parce que Cheikhou ñun en tant que maire ñun en tant que des citoyens ñun ñu dëkk ci gox bii nii xamuñu la gisuñu la teguñu la bët pour dire vrai du lu ñuy làq-làqantu du ñuy lijjanti lu ñuy négocier ñun fii maire bu fi nekk xamoon nañ ko tàmbalee ko ci Badou jug bi mu fi jógee nga ñëw remplacer ko ka jiitu woon ba du jóg mais yow en personne kenn gisula ci biir commune de Lamsar sa biir commune bi nga dëkk nii surtout Lamsar gii ñun gisuñu la dégguñu la fii ko wax kan mooy maire maire ji de Thiaroye Kaw sax xamu la kaddu askan wi nag mooy wax du samay kaddu man waaye askan wi. émission bi moo tudd kaddu askan wi ñoom ñooy wax seen i wax laay jottali ñu ci bëri bëgg nañoo wax waaye ñeme wu ñoo feeñ ci média ñi ngeen gis ñooñu xëy na am opportunité mën a feeñ mën a wax ñu jël leen waaye ñi bëgg wax bëri nañu yaay booy yaa ngi fi baay yaa ngi fi nijaay yaa ngi fi rakk yaa ngi fi jarbaat yaa ngi gis nga xale yu ndaw yi ni ñu taxawee seen terrain de football yi ñu xam ne moom lañ am di ko footballee sax fi mu toll nii wax dëgg yàlla ndox mi nangu na ko kon nag ñi ngi sàkku ci yow nga ñëw taxawu commune bi taxawu njaboot gi taxawu tamit gox bi nga xamante ni mooy Lamsaar. ngeen jëfoo salaam ci beneen jotaay.